yow nuyu naa ñëpp fi laay tàmbalee yéen ci seen revue de presse teel sa kaas kafe nga guux bala ngay naan bay si mu wax la li xew ci réew askan sunu gaal gi yëgle gi ni ma gaal nga suuxoon ca géeju mbuur géej gi daanaka boobaak na ngeen heure bu xëyee gëq ay doomu aadama yoo xamante ne dañoo faatu di ay néew yëgle kaay gi ni ma woo pëp pëp nopp dalooti na jommeeti na nu waaru na jaaxle na na jàq nañ tiis nañu laa la wax ci tiis bi nga xamante ni moo wàcc sunu kaw ay yu yéegoon ci ak gaal doon dañuy dem tukki ngir wuti lu nu am yëgle kaay gi ni ma gaal nga bu ñu xëyee ñu naan am na ñeneen ñu nu ca for heure bu ñu xëyee ñu naan gaal ga génn war na ay néew yoo xamante ni daanaka dañuy dem ba yàqu ràññee leen moom daanaka problème la ubbil yéenekaay le quotidien le quotidien yëglekaay naan man démb démb kese rekk dongu démb waaw ñaar fukki nit ak juróom ñaar ci jëmi boppam moom la géej gi ay néew yëglekaay gi naan man ñu bokkoon ca gaal googa yëglekaay gi naan man ci luñ gisagul fanweeri nit ak juróom benn yoo xamante ni dañoo faatu seetal lii te ba nëgg ni am na ñoo xamante ne ba nëgg ni xamaguñu dara ay seeni mbokk xamagu gisaguñ dara ci ñoom gisaguñu leen libération yëglekaay nan man lii de Barça wala Barsax dëgg lees ko mën a dippee nag fi ñu toll nii tembe kaay ma wax la business de la mort la de am na ci koo xamante sax ngoyee ni nan waaja Pape lay wuyoo ñu gën koo xam ci saf moom demi frère maire Mbour ba la yëglekaay gi ne ma kii wax na jot naa teelu tolloog 10 millions laa la wax pour convoyer ay candidat seetal ma lii démb démb dong ñaar fukki nit ak juróom benn la ñu répété ay néew yëglekaay sans vie ñoo xamante ne ay néew lañu te kat man li ma yéem te jaaxal ma donte drame bi am na donte ñi ñaa ngi faatu ci géej gi am ñu koy dégg am ñu koy gis ci seeni téléphone teewul ñu dëgër bopp waa gendarmerie ci jëmi boppam yëgle kaay gi naan man mooy nañ genn gaal goo xamante ne daa nara na dem ca Mboro niki démb ci talaata bi seetal li man de gone yi li leen di jàmbak ak raj raj loo ci gaal gi laa xamul lu mu doon ay waay resté seewu les ko ni ma gaalu mbuur ga bilan ba yokk na néew yaa ngay feeñ ñaar fukk ak dépêché yëgle kaay gi naan man daanaka dem ba yàqu woo sunu njiitum réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye les échos koy wax déglul ubbil yéene kaay bi moom ci jëmmi boppam réagir na ci ab benn petite phrase ca conseil des ministres ba yëgle bi moom li ko jaaxal les ko nee na nii la président du PM ci jëmi boppam du ministre de l'intérieur du kenn koo xamante ni dem na ca place ba lii jër ta waxtaane turbine yëgle kaay naan man ci ay waxtu dong ci réew mi askanu sunu gaal gi daanaka juróom fukk ak juróom doomu aadama ñàkk seen bakkan seetal loolu autorité yi ni ni may njiital parti gëm sa bopp borom des médias ne man li ma bëgg mooy nag ñu daal di décréter li nga xamante ni moom moo di deuil national ci réewum askanu sunu gaal gi li président ci jëm bi boppam mi la xoolal li fi faatu patt pattiral gi ci jëmi boppam waralu état bu gaan ngay ne ñoom dañoo war a génn wax ci mbir mu ni mel révélation quotidien yëgle kaay naan man réew mi kat daa yëngu xoolal ma ci ñaari fan dong téeméer juróomi doomu aadama ñàkk seen bakkan ci réewum askanu sunu gaal gi a war a amal li nga xam ne moo di journée de deuil national ci réew askanu sunu gaal ndax li ñu ñàkk ci ay doomu aadama ci fan yi da ab grand panel yëglekaay dikk ñun ci ñi nga xamante ñoom ñoo bëgg na dem tukki yow ñi ngi naan géej gi ñii daanu na ñi suux nañu ña ngay gis ay néew ak ñi xammee nañ leen a xàmmee wuñ leen ci néew yi nga ne da ngaa jëlu gaal ni da dem yëglekaay gi naan maan fanweeri nit ak juróom ñaar la ñu jàppaat l'exclusif yëglekaay naan na fa Serigne Mountakha Mbacké Albachir ginnaaw kàddu yi nga xamante ni moom la Cheikh Omar ëpp ci yoon wi yëglekaay gi naan man mer ci laa wax Dakar Presse yëglekaay naan man ca kanamu Serigne Mountakha Mbacké Al Bachir ci mbirum Cheikh Oumar Diagne mi ci jëmi boppam Sonko daa dégager responsabilité am déglul bii ci guddi la amal waxtaan wi lee fa Touba yëglekaay gi naan man Sonko kay ci guddi gi la dem ubbil yéenekaay bi ma kàddu yi nga xamante ni moom la waa ji yëkkati amul lenn lu mu ci cautionné mbaa lu xamu ci lenn yëgu ci lenn ba mu koy wax dinaan Serigne Mountakha Mbacké Al Bachir bu dee jomaay nag moom ci jëmi boppam ma ngay dëggal engagement di ko continuer fonk gi nga xamante ni moom la fonk tarixa yi ci riim askanu sunu gaal ne dara du ko ci génne l'exclusif naan man moom ci jëmi boppam nag waroon naa xam Cheikh Omar Diagne te waroon naa xam ni nag Cheikh Omar Diagne ci jëmi boppam xaritu Diomaye Faye la laata muy dégager ay responsabilité antenne quotidien yëgle kaay naan man li jara waxtaane moo di fanweeri nit ak juróom yi nga xamante ñoo faatu ci ñaari fan ci géej gi la te ñi ne gisagul la le verdict yëgle diine ji ñu fonk leen le peuple naan maan la ca moom la Cheikh Oumar Diagne yëkkati ci jëmi boppam Sonko dañ ca kàccat maca moom yoonam nekku ca nee xamu ca lenn waxu xanaa xamoo ni daa war a na xam la ni Cheikh Oumar Diagne xaritu Bassirou Diomaye Diakhar Faye la ñoom ñaar ñi nga xamante ca prison ba le naan ma xanaa Diomaye du Sonko Diomaye mooy Sonko Sonko mooy Diomaye Bassirou Diomaye Diakhar Faye sa réew ngay jiite di askanu sunu Portugal fii nu ne ci réew mi équipe bi nga xamante moom la ñu ama ngay dellu ginnaaw ni loola yëglekaay gi naan man ñoom day première place ba ci jëmi boppam ci seen poule bi la ñàkkes nanu ko ñoom ak équipe nationale bu Sénégal waa Burkina Faso ci jëmi boppam ñoo jël place ba ci groupe L bi te kaay ma xamal la bi nga xamante moom la mujj am ak waa Burundi ba penalty ba am ci jëmi boppam ñoom waa Burundi jóg nañ porte plainte contre arbitre Quotidien naan maan directeur général RTS Pape Alé Niang pan ci jëmi boppam dem na visite ji xalif général des Tidianes te lu am solo la di laati bu baaxee rek bu sama clavier ñu dem bu suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel jàggeen jëf jërë ngeen jëf jaageen jëf mbokk yi xarit yeeg yi ñu jaajëfa leen bu baax a baax kontaane leen jox leen seen wàccuwaay ci topp gi ak teewlu gi bàyyi gi ngeen ñuy bàyyi xel ñu nuyu leen yéen ñëpp jox leen seen wàccuwaay di mastawu di mastawu di mastawu di bokk ak nakar bi Euh, waa Mbour di bokk ak naqar bi sénégalais yëpp parce que du ma nee Mbour rek day mel ni mbir mi Mbour kese la concerné waaye sénégalais yëpp yëpp yëpp yëpp ginnaaw accident ga nga xamante ni moo amoon ca wetu euh, nangal ma également euh, jëm fi nga xamante ni moo di Kaba je pense bien waaye jëm jëm foofu waaw diggante yoonu xombal Thiès diggante boobu yoonu xombal Jurbel euh, ba fukki nit ak juróom-benn ñàkk seen bakkan ci euh, te bis ba tàkk ba jeex tàkk ginnaaw loolu ñi nga xamante ni ñoo doon wuti lu nu am yàlla dogal géej gi euh, gaal gi suux ci géej gi ba am fi mu toll nii tembe fanweer ak juróom yoo xamante ni génne nañ leen ñu ne ñii kat ay néew lañu wax dëgg yàlla am te daanaka dem nañ bay décomposé wu sax. kon ñu ngi leen ci euh, massaw di di ko di ko di ko di ko autis la autis la euh, neexul kenn autis la neexul kenn gëm nañu yàlla nag xam na ni mooy dogal lépp lu ko soob waaye rekk ñu waxaat ci ci ci ci ci xale yi rek waaye boo demee kan mooy defar dëkk bi boo génnee dem sa soxna kan moo koy toppatoo boo génnee dem sa yaay kan moo koy teral kan mooy jàppale askan bi boo demee yan ndaw la jeunesse bi dese la askan bi di dese ngir mën a tabax réew mi nga xamante ni moom lañu bëgg a tabax bu ngeen demee yéen ñëpp waaye tamit ñu waxaat ci ñi nga xamante ni tamit ñoom ñoo nekk ci famille bi parce que da ngay doon ndaw ci kër yàlla suñu borom subhaanahu wa taala dogal sa loxo jotul sa ginnaaw maanaam amoo nga ñàkk maanaam. bu ko defee sa waa kër jàpp ni sa ñàkk gi nga ñàkk yaa ko teg sa bopp tey ngay ndaw boo tardee añ doo añ ah, doo boo tardee añ kenn du la tibbal foo nekkoon di taxawaalu liggéeyoo defoo dara amoon lenn looy def ci dëkk bi lu dul wër taxawaalu ba nu añ nga dikk na eh, eh, doo ko ñimee laaj sax fegum ngay def bu dee yàlla dimbali na la nga yeb jeeg ja nag di nga laaj mais boo dee ne yow yeboo jeeg ja doo laaj añ boo duggee ci ab toilette taal lampe nu doxee la ginnaaw ni ko kamaj nga ne ci néeg taal sa ventilo nu ñëw fayal ventilo bi fayal lampe bi boo duggee ci néeg di taali lampe kar tak tay tay te fayoo ci dara dërëm yoroo ko ah waaye ki koy fay daa so ki koy fay daa so yàlla moom la dogal mu war koo fay kii fay ventilo bi nga xamante ni moom la ki nga xamante ni yàlla dogal na liggéeyugul di dugg ci néegam di taal yàlla dogal loolu ci moom kakay fay yàlla dogal fay gi ci moom ilaa budda dakaa war a fay ak lu mën a xew bu ko fayul yàlla jële ko fi indi ko koy fay waaye ah, dugg ci néeg bi nangam nangam wàññil rajo bi waaw ndax lan lan jàpp nit ki di ko bruyer di ko yuuxu ah léeg-léeg nga dégg ci koñ bi ñu ni doomi diw de jox na yaayam nàngam wala doomi diw de tabax na nàngam wala baayam nàngam looy xaar ci tabax nàngam xoolal kii doomam ji ma ngay takk teral na jaba lan bàyyi leen jàmbur yi yàlla dogalugul am ci ñoom bu yàlla dogalee am ci ñoom ñu am bien vrai que ñu ngi ah, man du ma wax kenn ni boo liggéeyu tëddal sa kër non non xëyal jéem a wuti loo am d'accord waaye nekkul ni force danga ngaa war a mm, am liggéey force bàyyi loolu léegi leen loolu mooy nekk ci xelu nit ki jaxase xelam wala nga gis ku tukki jaar ci gaal gi yàlla dimbali la nga àgg di photo di vidéo di envoyé simlaak saala nga tabax kër ñu ne xoolal doomi diw ji bërki démb la dem nangam looy xaar ci c'est ça léegi da dem kon donc il est ñu ñu bàyyiwaat ci xel ñu bàyyiwaat xel ci lu ni mel xoolaat bu baax a baax naka la ñuy doxalee surtout les waajur waajur yi ñu xool nu ñuy doxalee seen diggante ak seen doom yi yenn xas yeeg yenn dóor yi ak yenn xaste yi ñu bakko waaw waaw nanu ko baax te nag ñu def ci ay tegtal ak jàmmoo sëñ Abdou Salam Sarr nu wax ci bàjjen xuja nunu nanu wax ci lii nanu ko waxtaane mu jeex ci réew mi parce que kat metti na de metti na moom metti na moom bu dee metti rek lu lu naan metti na rek nga bëgg a dégg lii moom metti na waaw kon nag nuyu naa sëñ Abdou Salaam Sarr bu baax waaw sunu jaay sëñ Njaay waaw borom njaree ñu ngi lay jaay jëfal di la kontaane di bég ci yow ci lépp waaw bég nañ ci yow ci teraanga yi ci tawfiix gi ci ci ci ci lépp waaw bàyyi daam kontaan nanu Maguette Cissé madame Touré bég nanu kontaan nanu Amadou Papi Diagne ah, maam jaara mama ah maam busa sa moom mani ni nañu kontaan nanu ci ci ci ci ci ci ci lu am solo li macha allah ardo ah macha allah waay sëñ Ndiaye daal dañ koy ñaanal mu yàgg fi te wér sëñ Abdou itam yàgg fi lool te wér waaw bég nañu sant nañu ndam nanu xel dal na waaw xanaa li neex moo lu ci waay man <laughs> ah yii teraanga ah, waaw waaw Mohamed bébé Mohamed sama xarit maa ngi lay nuyu di la béggee sama waa ji nam naa la bébé Mohamed léeg-léeg nga sauvé gaa ñëpp <laughs> nan dem ah Modou borom marok maa ngi lay nuyu Lahad Diop bëgg naa la bay Baye Modou Yard Mariétou Mbuuba maa ngi bëgg bu baax a baax Jaja Diop Ami Jabaay maa ngi lay nuyu di bëggee Karamba Kayta waaw Karamba Kayta nee na noonu la tudd Karamba Kayta ah, may sax maa ngi lay nuyu bu baax a baax nee na ma liggéey bu am solo Abdou Kane Mariétou Mbuuba maa ngi bëgg bu baax a baax mbay Moodu Baye Moodu Yadd wala Mbaye Abdou itam maa ngi koy biggee nee na sa liggéey rafet na macha allah yow rek laay topp waaye lii neexul ah Fatoumata Bintu Diallo merci Siko eh, sama xarit bi waame nam naa la de nam naa la de nam naa la Saliou Espagne maa ngi lay nii bu baax a baax a baax ne waa ji nee waa senegal nañu sàkk sarax wax nga dëgg de Omar Diallo maa ngi lay biggee Binta Saax maa ngi biggee Khady Yana maa ngi biggee Papa Diop. di bëggee xaadim tegtal xaadim sama xarit maa ngi koy nuyu bëggee <laughs> naa la Mariette Mbow ah mu ngi nii Mor Cheikh ah ñii ñëpp dañoo commentaire Mohamed Bey Keba Dia maa ngi bëggee bu baax a baax képp ku ñuy bàyyi xel Mamadou Lamine Ndiaye ah soxna Marème Tine maa ngi koy nuyu bu baax a baax Lamine maa ngi bëggee bu baax a baax a baax moom Mamadou Sow jow li xew doy na waar Modou Laye BI 1 ak Modou Laye BI 2 maa ngi leen di bëggee Marie fay maa ngi bëggee la grand patriote dam Bassel noo def Modou mbay Diagne maa ngi bëggee Ousseynou Fall sama xarit la waaw waaw maa ngi koy nuyu ca pirum ndëri di wax ni gàmmu pir gi nan ko waajal le le deux la incha allah waaw des na fukki fan ak benn waaw lu ne xañ na ci nan ko waajal Mamadou Lamine Cheikh Pape Faye maa ngi bëggee Ami Jabaay di bëggee bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Layin Seck di bëggee Maodo Kane di bëggee Mame Diarra Guèye Guèye Ndioro Basi Bàcc maa ngi laal nuyu di la bëgg di bëgg képp koo xamante ne yaa ngi nuy bàyyi xel mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi doomi day doomi bàyyi waa Pire waa Gosaas waa Sédhiou Matam ba ci Kicoor bëgg nañ leen jox leen seen wàccuwaay mbokk yi ñu jox leen dig daje ba suba ak jàmm jërë ngeen